ayca mi ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah Casa TV Bignona jaajëfal nañ leen bu baax a baax ami internet yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy topp saa a ne à chaque fi toogee rek xam ngeen ni ndaanaan lañ leen di tegal Euh, voilà la fois passée gis leen ki ñu leen andiloon xam naa yàgg na torop ngeen ñu bu baax ñu ni tam namoon nañ leen bu baax a baax master i e, moom lañ fi tegaloon moom tam mu andi ñu ay leeral bu baax a baax ci li nga xamante ni ci la yëngu ci musique ci milieu bi nga xamante ni bii nii ci la nekk fii ci Bignona wala fii ci Casamance xam nga ni man ak ah, sama ay morom bari ci morom ñi nga xamante ni Casamance moo ñu moom moo moom moo ñu soxal voilà mi ngi noonu dañ leen di jaajëfal bu baax a baax di a sama caméraman bi naanaan la donc ñi may nar a ay naanaan lañ tey maa ngi leen di tegal Libidoor doomu Kaasa mi ngi noonu booy bi may tooñee naan ko tengaade bi tey dinañu leeral pourquoi tengaade bi dinañu leeral pourquoi peewam yi métti yi mu sol nañu leeral pourquoi jaaytaat bi moom ak ay moromam ayca Libi ñu nuyu la bu baax a baax jaajëfal la bàyyi la ci suñu émission Casa la dëkk fii ci Casa TV bi Bignona. salaamaaleykum Casa la dëkk Casa TV et tout Euh, di leen jaajëfal lu bëree bëree bëri yow présentatrice bi Bintala Lyon donc ak sa caméraman donc di jaajëfal euh, waa Bignona yëpp waa Casamance Ziguinchor Kolda Sédhiou xam nga di leen jaajëfal Sénégal adduna bi yëpp parce que Casa TV moom nekk na loo xam te ne lu yaatu la gaa yaa koy suivre partout donc di leen jaajëfal lu bëri doomu Casa bi la.

aussi mu nekk lu nice donc musique moom maa ngi koy 2016 euh, laa démarré musique 2016 laa démarré ma carrière musicale donc voilà 2016 ba 2021 donc commencé la si jël yàgg tuuti donc sant yàlla jot naa si jàng lu aussi tamit expérience bi tamit si xam donc jot naa si am ouverture connaissance bu bëri macha allah sant yàlla 2016 là laa commencé ma carrière donc depuis 2016 ak léegi sant yalla dal musique dal apporté na ma lu bëri daal. dégg naa kase yi kase yu temps bari na yaa ngi encaissé ay millions. amiin amiin. ah mais ato ayca <laughs> mi ngi noonu xam naa du ci tontu mais dina ci tontu inshallah allah li bi euh, ñu gis à chaque fois say son man duma dem fenn ba dégg ay nit di ko déglu par exemple Dakar et cetera et cetera sa musique fii la yem fii ci Ziguinchor wala fii ci Casamance est-ce que tu ngi jéem def ah, bizarre hein, yow ko dul ça. voilà c'est bizarre aussi parce que man je wax sax ñi may consommer sax si biti lañ que parce que les réseaux sociaux bi la da ngay sound euh, publier ko léegi léegi France def challenge États-Unis je suis man am ay fans de Tahiti. <laughs> voilà donc man sama indi tangi ngi fu ne gars yaa ngi challenge yi partout donc euh, Casamance aussi bu fekkee tamit fi lañ koy déglu loolu mo nekkoon suñu premier combat déjà parce que mënoo nekk doomu Casamance après nga bëgg wa Dakar wala ailleurs ñu xam la fekk fi xamuñu la donc fi moy base bi pour man même kër sa bu amul fondement mom taxawul quoi donc fi mo nekk combat bi fi nak bu dé ñu koy léral ba gars yi ñu baye xel fi bu baaxa ba donc loolu mo nekkoon suñu souhait après nag bu ñu génnee tamit bu beneen combat la.

yàlla moo ne sama ginaaw di ma jox xaalis. ooy leeralal rek Casa Casa TV la nekk. mais yàlla moo ne sama ginnaaw. mais non comment yàlla. li bi dañuy gis yow cinq ans. waaw nga def ci milieu bi. waaw nga def ay conseils yoo xamante ñi fi def ay ay ay ay vingt ans. waaw defuñu ko fi. waaw mais yàlla donc mu demee noonu. yàlla bind tey du ma formation du ma faraa du ma formation de du ma si lenn mais yàllaa def loolu loolu du ci man du ci kenn nag donc yàlla fu ma boole ak ay nit yu baax. yo xamantene tay ñu ngi fi lepp lo xamantene soxla nako su mën leen ko waxee dañ ma ci jappalé aussi man tamit bayu ma sama bop ndax samay concert tamit dama ci damay damay damay dem ñafé ji sama live def ci sama sama xaliss avant tout tay su ma naroon ñëw tay ci benn binta ne ko jappalé ma day fekk man dimbali na sama bop ba paré donc mom ay quelques réglages damay jappalé rek donc yalla boole na mag ay nit xam aussi sama yaay mu ngi may ñaanal bu baax donc sama waa kër ñu ngi may ñaanal bu baax voilà légui nak suma démé bay woté gars yi di si jàpp noonu c'est parce que lima sék ak ñom la moo nice tellement que voilà dañ ci bëgg japp aussi té loolu yépp yalla la mo su né nee su ma nee yàlla moo may jox xaalis légui war nañu xam boy yi ñu la toppee non c'est ça ah effectivement libi a a a, à à Ziguinchor par exemple da ngay gis full bu koy top bu nekkee sur chaîne man man man man man daf may impressionner donc dama naan libi lan la quoi. waaw yàlla moom xam nga tey day bind te du yemale am na si ñoo xamante ne tey def nañu si carrière bi lu yàgg yàgg yàgg mënuñu am loolu am ñoo xamante ne tey lañ commencé yàlla may leen loolu donc loolu boo nekkee gëm yàlla du la la jaaxal man déjà avant musique bi yàlla yàgg na ma booleeg nit man borom mbooloo laa loolu sant yàlla loolu yàgg naa ko bàyyi xel fu ma nekk dina am ñu may jege dina am ñu may jege aussi parce que loolu ko njëkk may mooy damaa jege boo yooyu noonu mbooloo mi ngay gis noonu dam leen war yar teggin cause pour su ma wootee dañ may fekk si jaayuma leen dara aussi te loolu yàllaa ko def xam na ak ñaani yi su ma wootee. gars yi yàllaa ko def ak ñaan yi effectivement. Eh, li bi ñu rek ah. ah déedéet waaw tey bi ñoo ne bi ñu nekk nii damay toog di gis ay nit yoo xamante ne yaakaaruma ni xam nañ ma sax te dañ may wow fi ñu toog nii jardin euh, public la xaw ma place publique ñoo naa fi gis naa fi mbooloo bi ma daan topp. xam nga ba nii may wax la nag léegi mu commencé sulli affaire de gondi gondi. non du question gondi sax du question gondi xam nga tey yàlla bu la defee dara euh, da ngay sant tamit da ko léegi euh, euh, nu mu tudd li bi ñu dellusiwaat ci ginnaaw tuuti mhm. avant ngay doon artiste. dégg naa da daan bëri mbër la woon nag mbër li bi mbër ba euh, artiste musicien lan moo lu dugaloon ci làmb ak lu tax nga jóge ci làmb ba ba nekkaat musicien. bon loolu yëpp yàlla la rek toujours toujours si lépp dafa tënku si yàlla. xool da ngay dimbali tuuti. non mais leeralal ñu affaire yi. non dama mais dama la bëgg xamal ne lépp bu demee ba am tamit man bu fekkoon xam naa est-ce que sax si musique laay mujjee xaw ma. léegi la moo la dugaloon ci làmb. waaw damay ñëw ci làmb ba nekk ba nekk musicien. voilà boo may ma ñëw. gaa gaa yàlla moom mooy waral loolu. tey ñun ñëpp kenn xamul fi ngay mujjee man xaw ma fu may mujjee te bu ma leeroon ni fii laay mujjee bàyyi naa musique dama mujjee foofu xam nga donc bi ma si nekk aussi tamit dama doon jàng école jàng école jàng école jékki-jékki lamb neex ma ba tey daf ma neex you know ma dem ba si biir affaire bi neex ma trop ma amoon talent tamit trop mbooloo moom tamit yàgg na ma topp li bi door boobu nekkul si musique li bi door tuuru bi may bëre la donc ñi ma xam bu baax a baax a baax a baax xam nañu li bi door bi depuis si bëre bi la balaa euh, musique bi donc depuis bu may beure aussi tamit yalla mayoon na ma mbolo dama dan am ay affaire ay combat dégg naa nekkoon nga écurie Lamsar dem na fa traîner na fa ak gaay mais après euh, loolu jigen Ziguinchor tambalé won may dem di beure gaay di ma top, public bi di ma top di ma top ma dem ba ci biir ma gis ni fi lii mëna ci si réussir parce que ak lépp limay sobu damay xam damay gëm ni li mëna ci génn man duma def di nan est-ce que dina ci génn wala duma def duma ci génn lépp lu ba laal damay jàpp na mu siy génn te yàlla dafa ma si day suturaal sant yàlla à chaque fois donc làmb ji la woon ñu dem lamb ji làmb ji làmb ji ma jékki-jékki euh, dugg si école de formation donc bu audiovisuel man damaa jàng audiovisuel waay c'est vrai voilà merci beaucoup bi may jàng audiovisuel kii la il est il est non du question dangereux c'est que tamit mais attends léegi fi mu jóge ci làmb jóge ci làmb audiovisuel tey nga nekk artiste jaar naa fu ne wàccee naa sax def nekk naa sa manœuvre di wàccee ay sac ciment ak tout gaz ah boutique Ouleye Diallo Ziguinchor si camions yi di wàccee parce que ma nekk nit boo xam te ne tamit musuma bëgg talal loxo quoi you know ma loolu talal loxo nii wala nga nekk benn artiste boo xam ne yow amoo benn qualification lu dul wëy loolu danger la quoi ma jàpp ni lii danger la nekk fii comme damay conseiller sumay morom artiste ñuy jàpp ni musique kese mooy mbir mi ñu ngi réeree mbir dañu jàng ji benn métier jàpp si ak musique ñu boole ko mu dem parce que musique saturé wul quoi du la compliqué dara mën nga def say liggéey di def sa carrière musicale donc ma dem jàng audiovisuel bi may jàng audiovisuel aussi tamit ma fekk benn style amul style mbër da ngay ñëw ñu ne la carrément da ngay chemise u boutonné ba si voilà da ngay wattu correctement te man gëmoon style boobu man li ma gëmoon mooy def sa dëngal xaaf xam nga jaayee fu mbër ma dugg si après bi ma jàngee jékki-jékki départ bi affaire bi neexu moon école bi ma ba ci biir commencé am amour audiovisuel ma jàng cadrage jàng montage bi ma si paree làmb commencé génn suma xel donc koñ bi ma nekkoon aussi ma amoon benn crew bu fa nekk ay artistes dañ suñuy répété ma daan dem toog ñuy répété. mais boobu man xamoon naa ni man je pouvais faire ñoom lu ñu def noonu xam nga ma daan toog mais man yàgg naa déglu musique amul son boo may tegal xaw ma ko léegi nag foofu laa dem ba am oreille ma ñëw di toog ak ñoom di kii chaque fois booy est-ce que fii doo defee nii non est-ce que doo ko defee nii bés ma jékki-jékki ne damay maa leg ci len euh, couple yi man dama leen jàppal refrain fek ma ngi jang école audiovisuel bi ma ñew di len jàppal refrain bi affaire yi nice ñu duggal ko studio affaire yi genn commencé daw radio ñi di naan sax fa fa di la yenn gaay yi naan mënul nekk libidor libidoor mbër bi kañ la commencé musique xam nga mu jaaxal ñu bari ci la gëmé ni ah affaire bi kon mëna sé genn parce que gisoon tamit ay nit di ma consommé gars yi di ma naan mu ngi nice ñi di naan baye li ngay def yow mbeur nga di ma saboté ma gën a gëm sama bopp nag dèjà foofu la musique bi commencé ma dugg virus bi waaw mais mosumoon yaakaar ni ba dinaa dem bay def ay musique. ok ok donc loolu booy dégg jaax jaara mu ngi koy expliquer da ngay gis gëm-gëm ci moom effectivement ku gëm boppam la ku bëgg boppam la. ku xamante ni kii nii ay ay nawleem dañ ko dañ koo dañ koo nawloo Libidor doomu Kaasa mere naa ko torop tey li tax euh, mayuma tengaade bi ndax man tengaade bi laa miin ci moom <laughs> defe naa ni yéen itam tengaade bi ngeen miin ci moom des fois mu maye bu rouge bi des fois mu maye beneen bi mais mais mais mais mais waaw voilà gis nga mais mi ngi nice mais Libidor dañuy ñëwaat tuuti euh, yow sa relation ak yeneen artistes yi hmm. dañu gis ni que am nga ay relation des fois yeneen artistes kii yu nice mais est-ce que des fois du ngeen am ay affaire di jàppante yu ndaw si suuf bon man nag artistes yëpp samay gaañan lañ donc ñëpp samay nit lañu. du ma ñëw. ñëpp samay gaañan lañ. Mhm. man déjà aw ma xaar ma yàlla kenn ndax ku si nekk sa wërsëg ngay jël nga dem boo nekkee artiste nga jàpp ni yow rek yaa fi nar ne yaa ngi réeree mbir li yàlla di may sa moroom artiste boo si waree boo ko boo sa xol bu si naree bon da ngay sonn. Mhm. donc da ngay nangul ñëpp lu ñu am ku nekk nga nangu ko lu mu am donc moo tax it man jàppee ma kenn ennemi man ñëpp sumay gaañan lañ.

des jumeaux sax parce que ñu bari nous gis. Hmm. gis ko. amna ñu am nous sax dañuy naan mom mo feulal nous Mike mom motax ba ba gaay nous son bi ñu ko bon ñu bari dañuy wax ah. ñu bari dañuy wax mais ñu gisatuñ leen yeen ñaar ngeen di and gisatuñ leen yeen ñaar ngeen vidéo comme comme comme avant donc ñun on veut comprendre ce qui se passe c'est quoi votre problème. bon comme Mike c'est un frère. Mm-hmm. du Mhm. ndax sekk nañu loo xamante ne macha allah yàgg na trop. Mhm. ñuy fanaan benn lal di circuler di bokk ay bool di bokk lépp di bokk jotaay di dem concert di ñibbisi di tëdd di def lépp. Mhm. donc sant yàlla mu nekk sama frère tamit. donc falalu ma ko yàllaa ko falal ndax moom moo ma jiitu si musique déjà man maa ko gis fiil ko ñu yaatal ñuy doxal lu bari donc bu demee ba am genre comme ni nga waxee nii dañ leen doon gis mais gisatuñu leen ba tey pourtant ñu ngi ñu ngi gise mais euh, man ak mom, maanaam on a débuté en solo tout le monde moom carrière solo le débuté man carrière solo laa débuté ba tey carrière solo mosuñu bokk groupe. Mhm. dañuy jiitalante am nañu jàppoon ne sax ñun ñooy bokk groupe du groupe quoi ku nekk dañuy def carrière solo léegi nag moom am na moment boo xamante ne tamit artiste da ngay soxla sa bopp da ngay nekk si sa yite man tey maa ngi sama yite maa ngi biñoona instant bi mënu ma ko jëlee nga son ne ko eh, safla la gis ne ko kaay toog ak man biñoona mu may artiste la carrière am chemin am man tamit am naa sama chemin donc ku nekk da ngay xool léegi nag ni ngay xottee sa chemin lépp euh, finition bi yëpp ci kaw la réussite mais fu mu ne nii. mais amul ay affaire yu sew. non non non non non. mais ato xala bu léegi mu andiwaat non yàlla naa nga mais amul problème l'essentiel gars yi ñoom ñu ngi wax ni que vous deux vous étiez ensemble mais maintenant gisatuñu leen ensemble da ngeen daan def tout le temps fu ñu gis sa statut gis ay vidéo. et cetera et cetera on était ensemble chaque jour. Non, mais, mais, mais c'est vrai, parce que man, man, ils sont bien de me déménager. Tu comprends? Donc, ouais. c'est pas la même chose que avec, euh, euh, comment il s'appelle encore? De Moumaïk. Mais bon, on laisse, on laisse tomber, comme beaucoup l'autre, il l'air. Non, non, de question, le nom. on est dans une émission. Général Bigé, quoi. Général Bigé. Général Big. <laughs> Oui, eh, oui oui, Big respect. Ah, il y une place publique. Quand tu moques de moque, euh, moque de Moumaïk, il y a problème pour l'air. Euh, Libye, il y a tout, il a problème ah <laughs> un, problème tout le temps les artistes sont comme ça hein? bon tous là pour mais des fois y aussi y a des trucs il faut comme ça nous leen di pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Il y' a pas de problème. non ok de toute façon une Nous euh, euh, euh, que par exemple Big

Eteke Diaw c' est un mot en Joola n' est ce pas. door mu dem comme par exemple ma ne door mu dem. ma koy wax si samay sound jékki-jékki gis benn gaan def ko de ma ne ko warul wax loolu mu dem man maa ko moom loolu su ma déggee wax jooju noonu. ok voilà Eteke Diaw mot en Joola la. c' léegi nag loolu dafa terre ba nit war a taxaw ma ne ah taxagul suma kanam ne ma carrément Eteke Diaw man maa ko moom maa ngi dégg ay maa ngi dégg ay man nag doomu kaasa man tiitaange sax xaw ma luy tiit. donc bu fekkee loolu daf si bëgg am lu ko leer wala si bëgg kii bon mun na face to face ak man bi don't give a damn mun na moo téléphone bu ko neexee mu ne ma nañ tasee bërëb sàngam maa ngi bi ñoo naan mu ne ma carrément nañ tasee bërëb sàngam après mu ne ma moo boobu noonu ma daf ko sécuriser BSDA wala SODAV wala fan après bu dee daf may woo fenn si BSDA wala SODAV wala AMS ñu dem yow bi ngay bi ngay bind bi ngay bind son bi gisuma ko sax yàlla xam na ni gisuma ko sax parce que maa ngi big up sama copain MC Yaram maa ngi def maa ngi defee studio bi foofu noonu si studio am voilà donc pour te dire ni refrain bi sax nekkul lu ma bind sax déjà dañ taxaw dugal couplet amoon naa couplet moom moom miy dégg moom mii di ma déglu mën na ma seede amoon naa couplet damaa dóor dóor dóor couplet léegi mu na ma léegi refrain bi lu ñu ciy def léegi ak bit bi nu muy dewee noonu ma jékki-jékki rek inspiré loolu rek dugal ko ci mais yàlla xam na ni gisuma ko woon sax mais après après laa toog benn bés gars yi di wax loolu ma ne ah moom moo wax loolu wala yéen a wax loolu man de ba léegi waxaguma nag. ñoo ngi dégg rumeur yi daal. waaw ni que Big nee na. moom la yow yaay jël ay. moom la rek di ko di ko di ko big di ko euh, kii bi nu mu tudd. am na benn son bu mu def fikis. Maadou Sindola. voilà mooy sama saan Sindola bi voilà Sindola bi nga def ax dëmm maay. voilà léegi moom aussi nee nañ yow yaa jël. bit bi moom bon ñan ñoo loolu moom moo ko wax wala. wala nit ñu ngi wax loolu donc boo gisee ñu wax loolu si parce que dañ ko dégg ci moom. léegi d'accord. Sénégalais du du fen mais dafay dafay dafay dafay dafay yokk yaa am. léegi Euh, Mon master i e su ma juumul koy tegal bit. waaw Masta diko ko de passage. voilà Masta diko ko légui léegi bit bi lañ ko sacc légui Masta i e, man xanaa moma ma bit bi. je sais pas moi. parce que bu fekkee bitam na dem dégluwaat bitam bu baax ak man bit bu ma yor ndax Masta i e moo ma bit ou pas man studio Big Buzz moma tegal bit té bit bi boko ko mo ngi nek tempo culture Casamance. bo démé ci ak fo mu di dem tempo bo nga fay fekk. fu joolaa yi defee seen kuréel di tëgg bëgg a rëb tempo boobu nga fay fekk mu nekk tempo boo xam ne tempo Casamance la xam nga bu ñu jaawalee par exemple ku créé trap ak loo xam te ne ko fi fekk xam nga trap nit moo ko créé yow culture Casamance yi dañu fekk culture bi fii si suñuy maam ñu ñëw jël si dem sunu suñu yoon Torekunda dafa ñëw fekk fii culture bi jël culture bi exploité ko ba dem mais Torekunda créé wul yenn affaire yu bëri fii dafa ñëw mu fekk gars def affaire yu bëri fii Fafadi aussi tamit noonu. dafa ñëw fekk fi yenn woyu Casamance yi mu jël ko liggéey ak moom dem yoonam donc munoo fee nekk nga ne yow lépp lu nit laal si côté Casamance yow yaa ko moom Casamance bi dafa yaatu vaste donc ku nekk da ngay jël li nga moom nga dem sa yoon donc faut pas se compliquer les choses quoi moom bu fekkee tamit aussi am na lu ko mere lu ko métti si loolu man de ba tey musuma woo te j'espère bien que yor na suma numéro wala pour am suma numéro tamit du métti

effectivement lu muy def mu ngi rafet macha ñaanal mu gëna yokku xam na mais aussi bu fekkee tamit euh gaay ñoo ne di wax garaawul bu fekkee moom moo ne di wax tamit garaawul. bu fekkee tamit voilà bu dé dafa bëgg lérul tamit na ñëw ñu leeral ko man bay Fall la amul lu may tiit. Baye Fall borom borom borom gauche magique bi. ragaluma lool de. <laughs> ci mi ngi nonu c'est nous donne waa franchement euh, on est tous des frères et sœurs té ñun ñëpp Casamance mo ñu soxal ba ci Casa TV bi Bignona fi ci Casa la dëkk nga bi ni da fay jël ay nananu Casamance fo mënti nekk mu dalal la fo mënti nekk mu laaj la ci yoy ci ci ci lo yëngu fo mënti nekk mu jëm la jëm la gëstu jëm la teg loxo tamit pour pour bu ko defee yawit nga mëna dem donc motax mom mi ñu tek ko fi mu leexalal ñu bu baaxa baax euh euh li bi ñu ñëw ci yow mën nañu xam ñaata son nga am ay son bi wala single wala album. non xawma nak xawma ñaara son la am exactly ban son bo xamanteni bi ni bii boko déggé do de am envie bàyyi musique. Kana Kanfa Kana Kanfa sound love la my love la un na samay nekk na ci samay premier son donc bobu ma def sax artiste quoi bobu la gëmé ni donc ko gëmé parce que bobu dafa génn defuma sa promotion bu doy mu dégg muy daw gars yi di ko play ci radio yi gars yi di ko consommer xam nga ñenn bu ñu amee problème ak seen gel sa ñu teg su ma ko playé concert aussi yàlla def su ma ko playé su ma wàccee gars yi ñëw ne ma son bi naaj sa trop après man mii sax mi ko wëy dama ko daan toog di ko déglu lu bare bëri bëri mu nekk lu ma neex trop son boobu bokk na si li ma voilà touché bu baax a baax kan ak kan entre temps après génne naa maxi génne naa ay clip génne naa ay sound yu bëri voilà c'est ça. ok voilà euh, ñu gis ni que yi bëgg nañu trop macha allah euh, ngay koo xamante ni kii ñi ko gëm sa bopp. ku bëgg sa bopp doom ju ndeyam gërëm taguma ko nag dama koy wax jikkoom rek damay wax loo xam kii dafa nekk ci moom souvent dañuy faral di gis complicité bi nekk ci entre moom ak man ou bien man ak Lico effectivement yàlla dafay boole ay nit man yéen artistes yéen ñëpp laa boole laa boole laa boole yemale ko léegi seex laa damaa tëddee njaaxaanaay mais dafay am ñoo xamante ni yàlla daf leen di boole entre entre entre yéen mënu leen ci dara peut-être loolu dafay feeñ mais bon sama yoo si mais émission moo ñu moo ñu moo ñu xam naa ni émission bi li ci des baretul Libidor ñu dalaloon ko fi doomu Casa foo gis ci ci ci ci moom da ngay gis Casamance bi ci moom foo gis ci sañseem da koy gis ci moom da gis aax bi ci moom muy ko xam te ne kii da koy dund da koo bëgg lool te ñi ko wër tamit xam nañ loolu bu baax a baax muy ko bëgg boppam wax naa ko sànq dama ciy dellu si waat parce que leer na ma donc mu ngi noonu suñu ay doomu Casamance ñun ñoom la ñu am donc nañ leen jéem a teg loxo yéen ñi nga xamante ne yéen a ŋànk Casamance yéen ñi nga xamante ni yéen la ñu ñun ñu nga xamante ñoom ñoo ne ci suuf nga xamante ne ñoom ñooñu soxla ñii ci mel ni Casa a ñu góorgóorlu a baax ñu nga xamante ñooy suñu ay frères suñu ay sœurs nañ dalalaaj yeneen daanaan incha allah euh, li bi ñu ñëw tuuti euh, sa diggante ak sa yaay ñu gis ni ko ku bëgg sa yaay waaw balaa may jàll si étape boobu sax vu que ni émission baa ngi waaj a jeex Euh, maanaam bu ñu may invité waat si émission yi nii musuma gis musuma fàttaleeku ñoom fu ñu toogee ba jël seen temps pour di wax ci man donc nekk naa ay questions yi ma répondre mais I don't like gis man damaa bëgg bu ñu may invité ñu invité ma man en tant que man concernant man ak artiste boobu beneen parenthèse la parce que su ñoom musuma fekkee fu ñu jëlee seen temps pour man donc su ma nee toog man damay wax pour Libidor ak ñi may bégg ñu ñi may kébee voilà boobu benn parenthèse bu ndaw la woon. bon attends man dinaa ci teg beneen parenthèse man tamit bu ma la invité wee man maa lay wax lii laa lay laa laajte. donc yow yaa may wax artiste bi nangam artiste bi nangam. ma gisee say problème ak say artiste. ñoom bu ñu waxee ci ñoom aimé j'aurais kon émission bi après ngeen xool noonu ñu koy defee. ba léegi bu amee bu amee bu euh, amee euh, problème entre ñaari artistes wala man de xaw ma sa aw ma sa problème. il faut maanaam boo leen sentiree tamit ni am na genre biif bu ndaw ak entre artiste ak boobu ngeen woo ma ñu face to face. loolu dina boobu benn parenthèse la rek. mais man du may like di wax si nit boo xam ne toogul. loolu loolu dafay ci moom.

lépp ni may reyante nii sax pour affaire de musique yooyu noonu yëpp lépp moom la moom moo tax may rey suma bopp suba ngoon parce que bëgg a réussir dimbali ko voilà nekk na maire boo xamante ne tamit soutenir na ma bu baax bokkam ak artiste yoo xamante ne buñ ciy débuté seen yaay yi ñu man c'est le contraire man moo may soutenir ba tey jii moo may soutenir samay concert samay lépp bu amee fii daf ko siy def du nelaw ba concert bi tas. donc man xam naa ne man mënu ma see bañ a réussir man xam naa ko ni daa si réussir incha allah loolu gëm naa ko te xam naa ko te loolu yëpp moom la su ma demee di laal ay buntu muy tijjeeku ko grâce à moom ndax yéene bu mu am si man donc mu nekk sama complice nekk sama lépp di ko ñaanal gudd fan ak wér

adina dañ ko dañ ko ko a jot quoi. mais ngeen ñëw li ngeen pas. <laughs> Kabi di ko bëggee di ko lu bëree bëree mu son boo gars ñu ngi koy bu baax te bizarrement yow nag xaw ma sa oreille fu mu te aussi doo fi nekk tamit di def musique bu compliqué. musique da koy def da ngay def musique tellement da ngay def musique bu mu simple tellement que ñu lay consommer dañ dañuy parkeriser son naturellement facilement mu donc nekk na son boo xamante ne bu mu génnee ba tey lu positif laa fa am soo demee YouTube sama chaîne YouTube mu ngi am ay vues yu bëri alors que ni du clip sax audio rek lañ fa sànni gaa ngi koy partagé maa ngi koy dégg si jakarta yi si yi maa ngi koy gis challenge yi. Ah, extérieur fu ne gis naa ñu ma dégg ñu ne même son Samba Peuzzi bu tama bi sax moo ko hmm. moo ko gën a kii. waaw loolu Samba ah, Peuzzi la loolu ñun la léegi gars yi bindatuñu ah, nelaw. nam naa la moom wax dëgg ñu bëri gis si seen bopp surtout ñoo xamante ne ñu ngi namante voilà gis nañ seen bopp bu baax mu nekk saan bu kii même suñu caméraman bi sax xam naa ne moom da koy cons <laughs> xëy mi ngi noonu bëggoon nañu mu gën a yaatu bëggoon nañu gën a leeral bëggoon nañu gën a sulli ay affaire yoo xamante ni moo nekk ci moom ci suufa suuf mais malheureusement temps bi xaj nañu li duufoon ci nag li lépp xajul ci xajul ci tin li waxtu wi doxee na fi papa pëng li ñu li ñu cëralee woon ci waxtu jeex na xam naa dañ leen di jox rendez-vous incha allah ci seneen ben ci suñu beneen numéro Casa laa dëkk fii ci Casa TV bi Bignona wax leen ni que ñu bàyyi mukk ñun yéen artistes yi nañu fi tax a toog te man dama leen di wax yéen artistes yi ragaluma ci kenn man ax yéen mun naa ne école la ret mais du classe man ax yéen <laughs> milieu bi moo ñu boole ret mais du maax yéen léegi nag da di def ndànk